Madame la ministre, euh, chers ministres, chers collaborateurs des ministres, j'avais noté beaucoup de choses. mais d'or, ça m'a sama Il y a une opposition bien de de voter budget parce que le président Macky Sall de fouvre 2008 il fait eurobond 500 millions Il lañ 2008 Macky Sall n'était pas président de la République te man bokkoon naa ci ñi ko voté parce que dama gëm ne am réew buy dox ami soxla day leb les grandes puissances dañuy leb États-Unis day leb detam tey passé na presque 100% de son PIB France la même chose kon Yoyu, yàq wax la leneen lii leneen lii mooy xam nga boo nee budget du ma mais loolu téwul ambition transformatrice bi Macky Sall am ci Sénégal mu ngi mu ngi wéy té foko ko wéer nag lal mu nga fa foko lal rek mu nga fa mooy wax monsieur le ministre des finances si demain parce que li ngeen def en tant que gouvernement soutenabilité subvention au secteur de l'énergie mais ëlëk bu fekkee né dafa nar a ndak taga témbel réew mi mais dañ koy xoolaat c'est ça aussi un gouvernement responsable. Il faut sortir de ce populisme dans lequel on veut nous faire entrer pour dire que oui, boy ok, réunir ñi wër yëpp yokk nañ il courant a nañ carburant. carburant président Macky Sall m'a fait am le le Sénégal du ñu yokk waaye tant que Sénégal mu koy supporté, supporter duñ ko yokk waaye bés bu ko Sénégal supporter priorité yi fait. Il faut que nous fay xaar président Macky Sall bu boobaa am na sañ-sañ ñu ñu xoolaat naka lañ koy doxale madame la ministre de l'énergie ñu ngi lay nuyu bu baax yow ak ñi nga àndal ndax da nga ay doomu réew mi ñoo xam ne ay xale yu jàng yu am xam-xam te secretaire général xam nañ ko bu baax directeur généraux yi nekk fii ma jël si rek exemple Mariam Ndoye bu saar xale bu jigéen bu ndaw jàng am xam-xam fekk Sarr ci situation bu metti mu taxawaatal ko ba tey Sarr yokk na ay capacité de production tey régénère régénéré an ay machine am pour exploiter le pétrole du Sénégal loolu lépp ci diir bu gàtt lañ ko defee kon gàcc ngaalama Macky Sall mi ñu tànnal ay nit ñoo xam ne xam-xam dañ ko jël def ko ci mi parce que loolu mo am solo am xam-xam te yéene ko sa réew loolu amul njariñ xam-xam boo ko amee da koy yéene sa ci construire le pays mais pas ceux qui veulent tenir un discours pessimiste un sénégalais bashing à toute vue à toute permanence l'autre dafa war a dakk ci réew mi dañu wara a yalla bimu ñu maye njitu réew mu melni ni Macky Sall ndax tay ñi daawul am courant ci àll bi ci dëkku kaw yi tay ñom ñoy laaj courant légui problème courant avant c'était l'apanage du milieu urbain té fi 2008 tok nañ fi débat à la fin de délestages lañ doon wax octobre 2008 maître Ndey Fatou Touré me posé cette question orale au ministre Samuel Sarr

Nous fay dawal transport yépp ay paysans lañ woon au départ ñoo dëkk ci taax yi ñoo am courant yi développer développé secteur transport loolu nag ambition transformatrice bi Macky Sall am am yéene bu rafet ci réew mi moom moo indi loolu madame le ministre ñu ngi lay encouragé di encouragé les équipes di encouragé Sénélec ils font un excellent travail un excellent travail ak structure yi nga xam ne ñu ngi sa ministère mu des nag transparence dans le secteur du pétrole et de l'énergie wax fa dëgg yàlla wër nañ ko fu nekk mënuñ am ñu je comprends pourquoi nous avons wax à un certain moment que y avait une compagnie qui s'appelait Tuloyol Oil mu une opposition destructrice dans ce pays parce que japp na contrat pétrolier ana contrat bi mu am ak Sénégal je vous remercie